yéenekaay yu bëri xëy woon nañu tey wutali assemblée nationale mi ñara jur waxtaan jëm ci projet de loi euh, mu ñeel article 87 euh, bu constitution bi yéenekaay bi ne lu mat a bàyyi xel ndax mun nañ fa jaare tas tasar assemblée nationale yéenekaay bi gis ne ñaari euh, coalition yi le bokk na ci taxawu Sénégal bu Khalifa Sall ci assemblée nationale ak wallu ay député mun nañ fee jaare xaru ndax bu fekkee ne wote nañu dagalal nañu bile projet de loi mun na sànq assemblée nationale bu fekkee ne firndeel mooy Khalifa Karim Wade mun na doon eh, candidat ci élection présidentielle yu 2024 Doudou Wade ci Walf Quotidien ma ngay artu di dankafu ne bile article 87 eh, bu constitution bi eh, dafa gis ne njiitu réew Macky Sall am na lum ci laxas bokk na ci yokk dooleem neewal doole assemblée nationale ba tax na njiitu réew Macky Sall li bu jàllee tey say bu ko neexee mun na tas assemblée nationale taxawalaat génente loole yàqum koppar la day naxasal démocratie yéen a kii di réew mi quotidien des ak ñun ci pencum ndaw réew mi di assemblée nationale euh, bokk na ci li des euh, ci bile euh, assemblée yéen cabinet député yi tey daañu xam ndax daañu signé seen daanaka dakkal assemblée nationale ba faw ba dootuñu mun a falu ci jamono ji xëy na beneen yéen cabinet article 87 bu constitution bi moom la ñu nar a waxtaanee tey assemblée nationale war ce addu Doudou Wade moom dankafu na xaat député yi ngelawaay bu leen ko wote ndax mun naa doon lu Sénégal ci fànn yu bëri yéen cabinet Tribune ne Bougane Gueye Dany àndu ci modification article 87 eh, bu constitution bi njiitu réew Macky Sall lam ca mooy fexe ba mun a tas assemblée nationale eh, tënk ko ci cooboreem bokk na ci tamit fexe ba eh, Benno Bokk Yaakaar mun a am jëm ci élection présidentielle yu 2024 moom njiitu réew Macky Sall mun a ngoy ci nguur Bougane Gueye Dany noonu la gisee ba tax na mu ngi artu askan wi ci salfañe caxat caxate gi mu ne moom la njiitu réew Macky Sall bëgg a caxat caxate constitution bu Sénégal syndicat bi di le mandat mu ngi ñuy dégtal Bougane Gueye Dany njiital gëm sa bopp euh, fippu na xamle ne ci jamono ci njiitu réew Macky Sall la mu jublu mooy fexe ba salfañe euh, constitution bu Sénégal euh, fexe ba jaare ca ci article 87 bu constitution bi ngir mun a yokk doolem ci jamono ji neewal doole assemblée national fexe ba itamit mun a doxal nu mu ko neexee ci mim réew Bougane Gueye Dany ne askan wi yeewu leen waru leen xool njiitu réew Macky Sall mu bëgg a doxalee nu mu ko neexee ci wàllu politique ci Sénégal yéen ki abi di le quotidien ne mbirum politique ci assemblée nationale réforme euh, constitutionnelle euh, tey jii nag gaa yaa ngi war a taxaw ci article 87 bu constitution bi yéen ki abi ne kaala goo xamante ne daanaka gaa yi jotuñu caa juboogum yéen ki abi ne ku demee ni euh, Thierno Alassane Sall mi xam le ne du ko wote benn yoon ndax du boote luy nasaxal démocratie bu Sénégal lu aju ci mbirum Karim Wade Khalifa Sall Thierno Alassane Sall jàpp ne njiitu réew Macky Sall dafa bëgg tànn ka koy ci boppu réew mi ba tax na université Karim Khalifa Sall daanaka du ko woote yéen kaabi di source mu ngi ñu dégtal assemblée nationale ne yeewi askan wi ci jamono ji pare nañu ngir sal salfañe liggéey ba ba yooyu le projet de loi benn du ca dagan benn du ca jàll ca pencum euh, ndaw réew mi yéen kaabi di Sud Quotidien bu weeso révision constitutionnelle euh, modification loi électorale dañ ko fa amal ak code pénal bi yéen kaabi ne euh, ñaari kaa yile Karim Wade Khalifa Sall dañu waxtaane seen ëllëg ca assemblée national yéen kaabi di yor yor jot nañ ko jëmal ci akutefu Ousmane Sonko mi sakkoon ci askanu Sénégal ngir ñu amal concert casserole maanaam fexe ba euh, daanaka amal euh, teggum kawdir fépp ci réew mi yéen cabinet yëf ya mujjee naa jàll mujjee nañ koo jëmmal euh, bokk na ci waa Pastef ne lañ ca jublu mooy woon njiitu réew mi Macky Sall nan laak naka la xamal ko ne Ousmane Sonko fa mu bokk ci élection présidentielle yu 2024 yéen cabinet du 24 heures ne Ousmane Sonko mujjee naa am ndam ci concert u casserole gamu santaane woon ndax mujjee nañ koo jëmmal ci Sénégal ak fépp ci Euh, réew mi euh, ba ci euh, diaspora bi ay sénégalais ngab nañu seen kawdir ak seen cin ak seen bool tegu ko rëng-rëng ba jaxasoo lool bokk na ci lañ ca jublu mooy fexe ba gindi njiitu réew mi Macky Sall ci yoon nga mu jël bëgg na saxal candidature njiitu réew mi Macky Sall direct news ne candidat élection présidentielle 2024 Moustapha Diop maire bu Louga ne candidat la tàmbale naa dagaan baatu askan wi ma nga amal nemmeeku ci këru diine yi kabidi la dépêche républicaine ne eh, candidat bi njiitu réew Macky Sall war a tànn ngir mu doon ko dagaan baatu askan wi ci turu coalition Benno Bokk Yaakaar laaj dal di sampu ndax munta doon Abdoulaye Daouda Diallo ndax profilam eh, maye na comme déet yéen a di le point actu jàpp ne diggante Abdoulaye Daouda Diallo ak eh, kii di Amadou Ba premier ministre diggante ba neexul am na lu ko xajamal ba ba léegi ba ñoom ñaar du ñu jaaroo taal yéen a di laas ne tàmbale naa yëglu ngir bëgg a doon candidat ci élection présidentielle yu 2024 Mansour Faye maire bu saint bi yéen a bi di laas xëy waxtaan ak euh, Mamadou Lamine Diallo député bu tekki euh, gis ne euh, ci candidat yëgloogum ngir jiite réew mi daanaka téeméer boo ca jël juróom-ñeent fukki ak juróom-ñett ya yëpp lu leen tax a mooy seen intérêt bopp waaye du intérêt réew mi kenn ku ne ci ñoom bëgg na jaaree ci nguur ngir am alal bu ñu sukkandikoo ci Mamadou Lamine Diallo yéen a bi di le peuple quotidien di ñu dégtal section de recherche mi wolu démb El Malick Ndiaye mu koy déglu ci wàllu audio quotidien ne bëri na lu Dakar dem dikki lu di yàqule ci réew mi saay bu yëngu-yëngu amee woto yu gaare woto yeneen woto yi ñu taal leen jëppët lam cay ñàkk ci koppar ëpp na ñaari milliards mu ngi ci yéen a bi yéen a bi di Le Soleil ne football ak Ligue Pro Génération Foot yëgluwaat na jël na ndam li yéen bi moo ñu ko yëggee moo daan jàmbaar yéen bi di Le Soleil xëy duñu ko faram-fàcceel yéen bi di euh, Stades neexul ba neexul waaye Génération Foot euh, daanaka euh, kàngam ñoo fay jógee wàllu football ndax yëgluwaat na ci ligue pro bi du gulet bi mooy ñetteelu yoon euh, mu ci euh, ràññeeku yéen kaa bi moo ñu ko dégtal suñu làmb ne ñaari mbër yi bëgg na ñu leen ràññee euh, ci combat Ama Baldé ak Modou ga mujjee nañ ko jàpp juróomi fan ci weeru novembre 2024 la ñu fas yéene géewal Ama Baldé ak Modou Lo arbitre sifflé ñuy xool ka cay daal